Kamu jërëjëfati sëriñ Saliou eh, buur maa ngi lay nuyu te di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi seetaan Dakaractu TV di leen sant bu baax di bég ci ñëw bi ngeen ñëw. Serigne Sall ku la xam mën nañ ni en quelque sorte bras droit Cheikh Béthio eh, Cheikh bi ginnaaw dernier instant yi ñu ngi ci buur bi nga ci ñi Wow, waaw xam nga aduna eh, mom ku ci ne dafa am no fi nekké waaye ci bir nekk gi nak dafa am loy xam té mom mission bokkon ci jangalé di jangalé di wane kuy Serigne saliw di jangalé tawhi di di jangale ni wara topé Serigne Touba ak luy ak talibé ci bir lol nak dalay jangalalé nangou ay dogal nangou dogal yoy nak eh, jamono yoy moma yoy ngay wax ñangalé mom mu doon def ak ñun moy ñëwaat ci suñu bop moy nangou ay dogal dina metti nak ngir mu melni nga jakarlo ak ko xamni ni sa yakari yi nak al-akhirah bu loolu jàllee muy sa wayjur bu loolu jàllee mu doon koo xam ni da ngeen am ay relation yoo xamante ne yu particulier la ngay jàkkaarloog moom di xam ne lu mel nii dina am te dootoo ko gisati ci say bët metti na metti na waaye mettiwul it ngir bu mettee boo xalaatee lim la doon wax ci nga war koo gëmee Serigne baax war ko gëme yàlla topp ay ndigal bàyyi ay tere dina tax lu yegsi rek dang koy nangu xamni ni ay dogal yalla la te dalay neex moment yoyu nak wax deug yalla lool rek lañ ci tek moy gëm yalla xamne ne lu mu dogal rek neex nañu. dina ko run définir personnage personnage Cheikh becho personnage Cheikh becho eh, nit la ko xamni ni ko fi doon wax duñu fi jóge ci bëggum lu bax ci bëggum jamm ci bëggam teraanga ci fonk doomu aadama ci bëgg ñëpp jariñu ci Serigne Touba ndax dem na ba jàngal ñu ne xam-xam ba xam-xam jeex mooy xam Serigne Touba jariñu ba jariñu jeex mooy am Serigne Touba kon kooku personnage am ak dundam bu ma ci doon wax mën nañ cee fanaan waaye mënta ñàkk nga am yoo ci jukki yi ci gën a fés na ci defare sëñ Béthio fi mu gën a mëne nga dem ak nit wala ñu gis nit ku nekk ci dem ba mu mel ni ga dañuy am ak jaaxle ci koka ngir doxin yu muy dox sëñ Béthio fekk la foofu ñëw ànd ak yow du la dóor du la saaga du wax ak yow dara da ngay toog mu ànd ak yow di sant Serigne Saliou yaay demal sa bopp ba ci biir nga soppiku xam ne ñu la tek muy yoonu siraatal mustaqima mooy dëgg nga fekk si ko ci bokkon na ci loolu ci li nga xam ci lim doon doxal ci la bi ci des muy bernde bernde di mbiram ndax Serigne Saliou nee na dafa bis dafa njot mu ànd ak njaboot gi dem fekk Serigne saliw daaray got daaray Serigne saliw la bu nekk fii ci ginnaaw Thiès na bu mu yegsee ànd ak njaboot gi togg ay bernde dal di ànd ak ñoom ci naaj tang wi ñew yenn lo leen bol yi ñu yenn fruit yi ñepp di dox yoonu paquetu ndox yi lepp ñew di siyaare Serigne salu, nenu biko bi Serigne salu gisee ci naaj mu and ak yi ak jigen ni nenu mu melni Serigne bi dafa am yermande ci ci mbolo mi nonu ñuy doxé ci naju wi nenu mu ne ko li nga def ana lo ci jublu mu ne ko Mbàkke sante ci la nena bi mi avant muy wax loolu dafa melni Serigne bi da xawona tang waye bi mu waxee loolu ci sasi dafa gis ni sëriñ bi da ñëwaat ne ko ana li nga def loo ci jublu mu ne ko sant si la Mbàkke sëriñ Saaliw ne ko na nga xam ne bis ñi ki na bi bég nga loolu nga la def ba yàlla bég yonent bi bég sëriñ Tuubaa bég te sëriñ Saaliw wax ko ko nee na dootu ko bàyyi mooy lii mu def di bernde di rendi di joxe ñam wi te ci am xejj ak seen sans aucune distinction loolu moo doon li nga

Cheikh becho ma di la fàttali ni njabotam gi yëpp be Serigne saliw toge ci fi ci khilafa nek fi Serigne Touba na jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom le Serigne Touba daan def ci magni ma di la wax ni la Cheikh becho da jël njabotam gi yëpp jox Serigne saliw ba ci man mi ak samay morom te lol nak bañu fa démé jëlee nañ fa ngeureumul Serigne saliw jëlee fa ngeureumul Serigne Touba muy lenn waaye nañ fa nak ak taalube ak taalube jëlee nañ ko fa lolo waral bi fi amé ñu wané ci ak dal wané ci ak dal doxé ci ak talibé kenen ko doon gisit muy dox lenen luddul lolu xeyna ciofelam ci serigne bi moko yobbu ci lolu waaye kep ku yalla dimbali nga am lo xam te mom daf ñuko yag wax kep ku yalla dibbali nga am lo xam di nga xam ni serigne touba serigne muntaxaa moy serigne touba te cheikh becco ab jàngaleem lolu da ci bokkon nu ñuy serigne touba nu ñu war a ak talibé bi lolu amé nak ci lañu daldi nak di ko ay waxam ñangalé mom mu ñu jàngaloon wan ñu ne ku fi togal Serigne Touba lum leen wax na ngeen ko def ci saasi ci lañ taxawé def lolu nga xamni mom la Serigne muntaha bëgg. dem gi dafa dogal damay wax ne loolu mbiri Serigne Touba la sama digënté ak mom li ci feeñ dafa bëri say su ma rek di am lu ci bes lu ci yes lu may xam <coughs> yalla dogal mu amon ci man ciofel go xamni ni man sax mujj gi daf ma tek kersa japp na ni man ak mom duma ni day amul lu mu wax ak kenen waaye lim wax ak man bari na lim ma xamal ci bopam bari na te lolu ay dogal la sama digënté ak mom sama takko won ak mom nga xamni fu mu mësaane ne ñoom maa ngi moomay te sama ndimbal te ndariñ li di feeñ ci man jamono yi ba kuma gis dima bëgg ngir lolu xeyna lolu taxon nak bi yi fi amé ñu bari di xalat waye ma nit yalla dogal na préparé na ma ci lu ne préparé na ma ci bi lolu amé man nangu ay dogal ngir kat nit bu fi nekké and ak yow dila jangal mbir dem ba lolou mu la doon jangal bis ba yegg nga doxé nenen su boba mën nga ko tek kersa bi lolou amé nak dama wat ci serigne touba xamné li ay dogalam la té mu neex ma nak ni ma neexé moy xamné mom fu mu ne fa ne lolou mo waral sama digënté ak mom lima ci mëna japp lima sama dig sama digënté ak mom li ci xew dafa bëri ba mënu duma mëna wax lepp sax nak wa ciofel gumu amon ci man té neub ko nak diko wax fep nak wa lolou wa say wax mhm. mhm. euh, na ay échec mhm. waaye ba tey yaa ngi dellu bi rassembler mbooloo mi que ñu jël njabootu seen biir yemale leen te ci am benn xaj ak dëgg la waaw loolu li tax koy wax dama koy faral di wax saa su ne léeg-léeg xër ak bëgg sab sëriñ dina la yóbbu ci nga def loo xamul te nit nit rek la mën a doon nit day juum li gën a neex nag ci àdduna nit juum nangu ne juum na dafa am loo xam ni dañu ko war a jàpp ci njabootu Serigne Béthio mooy li ma la ko waxee léegi da leen a yar ci ak taalibe yar ci ak murit cheikh becco lu mu masal liguel serigne touba ak njabotam ca kanam lañuy dem ca front ba lañuy jitu ñoy jitu ca kanam mo xam xelkom mo xam jang xasida mo xam jëfi magal jëfi gamu lu mu mën doon cheikh becco ne mok ak njabotam ci and kon leg leg nga gis talibé bo day melni day jàkkaarloog doomi serigne bi melni kuy am njumte ci ci ci mu ci mom té lolu di erreur bo xam ñun ñëpp ko wara maytu ndax mënoo wax ni dama gëm señ Béthio yaakar ko mu defal ma lim ma defal nga ne ah man kat ma ngi dekkon bërëb sangam dama daan jëli ñol dama daan def nangam dama daan def lu bon moma ma ca def ma ni mu ma def ba kuma gis bëgg ma nga mëna a un Seydina ne doomi señ la ni ki nak ah ki nak du nit ku bax boba yaangi ngi weddi sa bop weddi nga sa bop ndax kat olof ndjay dafa am lu mu wax neena bay ci sa weewu Cheikh bu ni wër di defare te tambalé ko kërëm dinañu jaaxal lim tàmbali defar ko ci ay nit ci biir këram la ko tàmbale ci ak njabootu boppam te loolu nag nit ñi am na ñu bari ñoo xamante yàlla dimbali na leen ci am na ñoo xamante ni nag wax dëgg yàlla yàlla dimbali na leen waaye nag dañuy jàkkaarloog asamaan si tiim weer wi ñu xool weer wi nga leen lii weer wi la ñu ne la non lii moom naaj bi la loolu nag moom kenn mënu ci dara ay dogal yàlla la waaye njabootam ñu gëm sëriñ Touba lañ ñu fonk ak taalibe ñu diiñ lañu ñu bëgg lu baax lañ te fépp fu dem ci réew mi. ku len gis xamne ñi kat seen wajur wayar na len lool nak la doon waxtaan ak sank mbokk talibé yi di len ko di len ko di len ko fatali ngir ñu amaat benen jappin wu am ci digganteem ak Wow, waaw loolu mom la yàgg doxé sa ba tok, ak mom damay tok lima ma yalla moy mënon na doxé nenen té xeyna buma doxé won nenen booba la may wax noonu lay demee waaye yàlla dimbali na ma ba rôle rassembleur laa mës dox mooy lépp lu ma fekkee ci lu ñaaw dinaa fexe ba mu rafet du ma fekkee keneen ñëw di wax ci ab taalibe leneen lu ñaaw jëme ko ci cheikh bi dinaa fexe ba xamal ko ni ko lii ñu lay wax ci kii demewul noonu neneen la demee la ma ca xam te muy dëgg kon man rôle boobu laa yàgg doxe te loolu dama ci sant yàlla ba fi mu toll nii j'ai la conscience tranquille mooy wóor gi ma melna ni mënon na def lenen lu ñaaw te defuma ko te lolu ndimbalu yalla la moy man lu bax rek la mësa wax lu bax rek la mësa def lepp lu gis ne li mën na yaq wala mën na indi ay rero ma waxtan ci ak mom ngir xamne mom lu bax rek la bëgg wax gi may wax ak mom damay xam ki li la bëgg mom limu bëgg moy lu bax kon bo gisé lu bax da ko ko wara wax. wa c'est une ndaw ci wala 98

taalibe yi di ay cantaakoon dañoo bëgg Cheikh Béthio sëñ Béthio dara leen lu ne question bi nga laaj nag xëy na cofeel gi ñu gisoon mu am ko ci man tey du wax dëgg yàlla mu dimbali ma ndekete dafa ma bëggoon utal lay ba fu mu mës a ne ma ànd ko ak moom lu mu mës a liggéey lu ma ànd ci ak moom xëy na loolu ñu doon gis sama diggante ak moom ak xëy na ndiroo gi physiquement ndax yàlla dogal na fu ma dugg rek buñ ma xoolee rek bu ma nee cuun rek ñu ne ah yow de la xool xam ne leeru sëñ xëy na loolu ñuy gis ci man mu leen koy fàttali jëmmam ja te ñoom bëgguñu ku dul moom xëy na looloo waral cofeel gi am ci man cofeel gi nag du rëy ci man di loo xam ni fas yéenewu ma ko salfaañee fas yéenewu ma ne ñii kat am nañ cofeel ci man kon naa leen indi ci sama bopp naa leen def loolu leneen lu bokkul ak la mu bëggoon li may fexe mooy lépp loo xam ni moom bëggoon na ko te bëggoon ab taalibeem di ci dox boo ma fekk see ma ànd ak yow ci loolu ànd ak yow ci loolu wax nañu ko nee na sëriñ ñett yii la ko mujjee wax na nga wax sa taalibe yi nañu fonk màggal gi na nga wax sa taalibe yi nañu fonk gàmm gi na nga wax sa taalibe yi nañu fonk xasaayiti sëriñ Tuubaa moom moo ci dolli ne nañ ko fonk le 17 avril ndax 17 avril mooy bis bu mu dajande woon ak sëriñ Saaliw kon man taalibe bu ma àndal nga ñëw wane sa cofeel ci man li may def lenn la mooy woo la ci loolu nga xam ne moom la ñu mësoon a woo muy liggéeyal sëriñ Tuubaa duma la woo ci sama bopp ngir teral na ma lépp lu ma bëgg moom defal na ma ko bu dee ay kër jox na ma ko ba ma doyal bu dee ay oto jox na ma ko ba ma doyal bu dee tukki foo xalaat ci àdduna yóbbu na ma fa na fa loo xalaat ci am ci ay poñeeti àddina li nga xam ne nit da ko war defal na ma ko te bu bem bi mu mel ne ni dafa mel lu fi jóge ci la daa mel dama koo xëpp maa ngi sant bu baax a baax kon képp koo xam ni rek ànd naa ak yow li ma ànd ak yow mooy ñu àndandoo liggéeyal ko te per yeggale liggéeyam boobu nga xam ne moom la fi bàyyi muy sant Serigne Saliou waaw ñu ci ëpp exposé wu ci di di di mag ñi euh, te ngeen nekk ay porteur de voix di jiite lan ngay soññi waaw yëf yi moom ngi ñaan yàlla ak mu jëlee ko fi ci nu mu gën a gaawe ngir day loo xam ni bette na lu kenn mënul woon a foog la muy mbas mi fi xew di Covid 19 nit nag dafa am lu ñu wax nañ fagaru moo gën faju te tawat si wax nyu li nga xamni nit ku ko def yalla mën na la dimbali nga mucc ci wax nañ ko ci télé yi wax ko ci radio yi ba képp kuy nit japp na ne xam nga liñ wax ne képp ku ci jaar yalla mën na la musal ci tawat gi day tawat jo xamni ni ci mag ñi lay ëpp lu muy dem waye mag ñi ñoom seeni biir kër lañu tok te ndaw ñu ñoy genn di delusi. ci kon nanu samonté ak mesure barrière yi nga xamante nyu moom wax di raxasu di set di tak maski yi te fexé nak buñuy dugg ci kër yi di raxasu ba bañ indal ben microbe wala len lo xamanteni ci mbedd mi la nekkon ñu indal ko suñu wayjuri lool appel bobu lay lancer di ko wax jeunesse bi ñepp nak ñu bayyi ci xel te di gor gorlu xamne rew mi suñu rew la ñu ñu xamne bu bu bu ñëpp ñun ñepp ci ñun ñepp la am njariñ wa kon lool rek la am ci luma ci wax bour di trop di len bëggé bu baaxa baax jërëjëf buur